5M TV Sénégal waaw waaw xam nga xam nga xam nga xam nga moom. rafet na rafet na macha allah rafet na. waaw war nga sabar. ah léegi am léegi léegi ñu bëgg kafe ñu naan léegi kafe gi ñëpp naan. Cheikh Abdoulaye Mbaye Mbacke jëndal na café mbooloo mi joxe na 10 000 jëndal na café mbooloo mi gis noonu jaay jaay jaay jaar ci jaaykatu café bi nekk fii ci maanaam yoonu yoon daaw suñu ko ñu ne euh, ah, mooy euh, Cheikh Ba Abdou Bara Dolly Mbacké nee na na ñëpp naan kafe joxe na euh, xam ne ñoo ànd ak moom ak ñëpp rek ñi naan kafe gisoo ko noonu gisoo ko noonu tey fu dara moom tey moom jaaykatu kafe moom doo wax dara tey tey moom <laughs> ak ceeb surneem neex na tey waaw. guddi gi dañu ne contrat joxe te baaxul dañu fexe fexe ba Sénégal yi seen dund woyof yomb parce que ñoom ñi dañ leen war dimbale jaay côté kam yoo xam xëyee jaay doo am bénéfice 1000 francs wala 2000 francs nga bëgg yor sa kër diw yokk ceeb yokk suukar yokk nëtute yokk lépp yokk te Macky Sall moo ko waral kon waa Touba lan mooy seen combat mooy lii soxla si bu ngeen bëggee seen i coono jeex bu ngeen bëggee seen aaja faju lii mooy combat bi gën a gaaw mooy le 31 juillet ngeen wote contre Macky Sall massivement massivement na Macky Sall daanu nu mu gën a gaawee parce que loolu mooy intérêt réew mi mooy intérêt Touba kon jërë ngeen jëf sa war a merci Agora! Agora! 5M TV